soo may ci yoon boo mën na doo nopp ma baa war noppi ah boo mën doo nopp kaa jot la faa bi ah man damaa sob rek. yéen a may topp may lijjanti lu ne. non da ngeen may topp nag. ma bu wér ne. ah déedéet wér borom abdoulaye laaj. damaa jaar fi ci quoi. ah nee na da a ah, waaw noonu jaar rek mu a gis nga laa mi fa ni lañ toogee nekk ci ginnaaw yaay rek bëgg ma jàll rek ba géej na ni tool eh accident joxe ndogu da eh? jërta costa da ndogu ma riis te ñun rek wax na dañoo pare ci xale dégg li ana fay njaay ci dindi ak ajaratu ndogu ñoo ni ci ndogu li kaay kaay kaay kaay kaay xale. ayca bii mbaxal bi la. waaw waaw beneen cin bee mooy tufe bi bii mooy kii bi. non non bii ceeb bi la ah. mbaxal baa ngi kii baa ngi ne tufe baa ñu ñëw ci mburu yaak café yi ma nga fële moom it beurre yeeg chocolat yi ah maa ko toog. ay boppi xar ak boppi nag lii de la mbaxal mi am waaw mbaxal mi maa ko togg yaay mbaxal mi nekk ñaar waaw boo paree woon ko dugg ee eh, mbaxal maa ngi kooku séeri maas la happiness kooku ko def ah, sama séeri ko la moo def mbaxal mi bu ne xam nañu ko sa baari ko diwa bi maa ko toog. yaa ko toog jël maa la ko yëngal xanaa yokk day tey. mais nan ko raxas. waaw lii daal lañ ko di quoi dëgg la waaw lépp ci lancement la rek. tamit ma jigéen sama chéri koko ak mama Ndiaye ñoo yoroon ci ngoon. mbur yaa nga ak café yeeg ndox yi maa ngi lay xeex daju baax. ma ne ko déggoo maa la pare na. waaw ñëw leen. waaw sama sama teewaay maa ngi nuyu waa Leuz TV ñëpp di nuyu ñi nga xamante ni aussi tamit ñooy seetaan fi nga xamante ni mooy Leuz TV maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp euh, vraiment sama teewaay fii nag euh, lu spécial la lu am solo la aussi tamit parce ki nga xamante ni mooy Daaro Thiam nekk artiste comédienne nekk artiste comédienne boo xamante ni ki kulli kuy comédienne séq na ak yow ak jàmm donc loolu moo tax ñun comédienne yi tey ñu yendu fii toute la journée est-ce que xam ngeen ni mbana mi maa ko taal loo fi lekk rek maa ko togg bu ma kenn déglu nag ñeneen ñi tes di ma xool buñ ma xool maa togg lépp man bu safee xorom man la bu bu neexee man la man la dégg ah maman Ndiaye la. mbana yi man mi maa ko togg parce que dama jël sama temps ma coogu mën a yi ba mu baax voilà ndaxte dama bëgg képp ku ñëw fii ci nga xamante ni fii mooy ndogu bi nga ñëw nga dogu ba suux donc chocolat bi ak beurre bi man ma xaar mu ruy après ma wër ko voilà ayca ba bi beneen yoon. avant tout maa leen di nuyu yéen waa Leuz TV yéen ñëpp ndax dëgg yàlla gis nañ ñi ngeen taxawoo Daaro vraiment gis nañ loolu yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen teewaay waa tey nag. li ko fi waral moo teew bi li ko fi waral moo nekk nga xamante ni mooy Tandaro tey mooy def spécial ndogu ànd ci ak la bi fans bi dëgg yàlla ñu ñëw fii rek euh, doon fi def ndogu jox xéewal yi jaamu yàlla yi rek te yàlla tax dëgg yàlla lii nag euh, mu doon lu nice ñun comédien yëpp nag ñu ñëw ànd ak moom di ko jàppale ci bés bi vraiment di kontaan lool ci moom ndogu bi nag ñu ko dippee ki nga xamante ni mooy maam jaara bu sa borom poroxaan sama rakk jooju sama rakk sama xarit dëgg yàlla xale boobu baax yaru doomu daaro di kontaan tamit lool vraiment ci laa mi faada daaro yëpp nag ndax dëgg yàlla suba ba léegi gaa yaa ngi fi ñu ngi raxas ñu ngi togg ñu ngi diw mburu yi ñu ngi diw bër vraiment kontaan nañ lool ci waa Leuz TV nag vraiment merci beaucoup ah ñu de dañoo kontaan rek tey ci bésu tey bii ndax daaro moom kenn mënu koo fay daaro baax na yaru na am nay teggin am na sutura bëgg yaayam ji nag ba mu jeex tàkk nag waaw kon nag ñun daal ñun mënuñu koo fay wax dëgg yàlla nekk na fi ba jóge fi nag jàmm salaam rek la fi nekkeek ñun àlala mi di ko boole kenn wax dëgg yàlla bu koor jotee ma ngay joxe suukari koor bu bu bu koor jotee mu reyu nagam jox seddale jox nit ñi ñun daal ñun jàmm ñun daal xamuñu ci moom du lu baax baax rek la ñu xam ci moom ak bëgg ndeyam ji sagal ko ba mu jeex waaw waaw loolu la xam ci moom. Mère Diagne ñu gis la nga bàyyi sa yitte yëpp ci koor gi ñëw fii nii si journée bi nga xamante ni mooy euh, ndogu daaru ak fans club bi ñu lay laajte lan nga ci xam ci journée bi tey. ah lii mu def de moom baax na wax dëgg yàlla ndax boo toogee ba yàgg nga ne xaaral ma def ne ni may weeru koor loo ci def rek tuyaaba la ndax wax dëgg yàlla jox ndogu moom tuyaaba te daanoo ñoo dëkk génn kër. am na yar am nay teggin te maa ci kaw dëkk ma dëkk suuf waaye mosuma gis mukk yaayam wax mu wax rus na yaayam am na sutura ah, am nay teggin mosuma gis mu wax ak xale lu mu am jox yaayam suba ba ngoon jot danaan na man de yaay fii yóbbu ma la màkk bu soobee yàlla yontu rek du mat àlli ndax man daal su ma soñoon wax dëgg yàlla lépp laa lay defal waaw te yaay mi tam baax ci njabootam gii wax dëgg yàlla ba daara moom gisuma mukk mukk mukk mukk sikkam waaw ñëpp jox cër man mii de pour ma ram daf may jox cër ni ma mère jee màkk na na di yëkkati alalam nag di joxale moom ne yàlla na yàlla defal sutura yàlla may ko fan wu gudd ak wérgén lu mu yore bi yaayam bi moom jooyu doom ji góor ndax daaro waaw asalaamaaleykum daaro de maa ko yar maa yaayam ba ñu ànd ay xale yu ndaw lan ñoom ñëpp nag sama loxo yi lan yaroo wax dëgg yàlla cër ba ma joxoon nag ba muy xale ba tey moom la continué mosuma wax lu ma naqari mosuma def lu ma naqari cër bi mu jox ndayam la ma jox ndayam yëkkati ko ndayale ma ko dama koy ñaanal rek sëyam bi yàlla na ko ci yàlla defal jàmm te li yoon wi mu jaar bu mu ko teggi nag ndax fi mu teg tànkam lu rafet la danga koy ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale ci doole sëñ Fallou barke Xaadim sol loolu rek laa am lu may wax ci moom. waaw maa maa ngi nuyu ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen wax ni Daaro man maa yaayam ah, li ma xam ci moom nag mooy lu baax rek. lu baax laa xam ci moom ba mu juddoo ba léegi mi ngi samay loxo mu musu fekk yéen demul dikkul tusa bu jot mi ngi nekk ak man lu mu liggéey sama loxo bi la ko teg lu mu am wax ma lu mu lu muy balaa moo def dara ñëw tàggu muy lu baax rek lu baax rek laa xam ci moom koy ñaanal ko ñaanal bu baax a baax a baax a ko de mais yàlla tamit mooy mottali yar daaro moom comme ni ma ko gisee dafa mel ni daal yàlla suñu borom moo ko yaral boppam ndax ni mu mel rek la mel du sensé du soppeeku du xuloo du xeex du dikkale tubaarkàlla macha allah amul benn amul benn euh, sikk xam naa ni sa du ñàkk sikk daal mais défaut bu bari daal daaro amu ko ni mu mel rek la mel nii nga ko gisee rek noon rek la mel xanaa su ñàkkee kenn du ko xam bu amee nag moom bu ñëwee di nga xam ne am na mais bu ñàkkee du jàmbat du gis nit sol dara wala nit nit moromam am dara ba mu bëgg ko day muñ rek ba yàlla jox ko ko moo xam ne am na mais daal daaro daal jikkoom moom loolu laa xam ci moom. non dafa dëgërul bopp moom bu jàppee boo ko waxee rek mu bàyyi amul sa naan. ña ña naa de wooyi ñu ñu waxal ma ci waaye kii ma ko woowee rek man su ma ko woowee léegi ni ko nangam ak nangam rek mu ne ma yaay bàyyi naa loolu moo tax defoom tam pour ma xam ko daal de day xaw a métti wax dëgg yàlla xaw ma defoom waaw bëgg na ma torop bëgg na ma torop torop torop bëgg na ma def ma bëgg ba pare yërëm ma fu mu nekk mi ngi may bàyyi xel fi mu ne nii dëkkatuñu dem na sëyi waaye bis bu yàlla di na ma woo téléphone lu man ñeenti yoon du sonn du ci taayee. waaw ndaxte xam naa ne man rek la xam xamul woon kenn ba mu juddoo ba tey man rek la nekkal xamul kenn musuñoo tàkkali ko bi mu demee këram ak léegi matu sax 3 mois loolu moo tax xanaa di ko ñaanal jàmm rek ak xéewal di ko ñaanal di ñaanal Leuz TV ndax fu mu yegg tey tamit Leuz moo ko fa yeggale ginnaaw yàlla fu mu yegg Leuz moo ko fa yeggale moo ko jàppale te tamit dëgërul bopp lu ko lës sant mu def ko ba fu mu yegg tey lës a ko fa yeggale kon moo tax maa koy ñaanal di ñaanal ñiy liggéey ak lës di ñaanal ay moroomu daaro di ñaanal daaro ak ay famille ak xaritam ak ñëpp yàlla defal leen jàmm doom nii xam nga mu nekk lu ma neex nag yàlla xam na ko ndax koo nga xamante ni moo la mag moo la mag fuuf ba noppi di la di la wax yaay dafa nekk affaire bu rëy waaw ñu bokk ci nag mi ñun sax mën nañ ni duñu ay fans club waaw du duñu ay fansam daal sunu doom la euh, sunu sunu sunu mag la sunu xarit la ñuy ñaan yàlla rek xam nga yàlla defal ko ndam ci lépp lu mu sumb lii nekk sunu première sortie ñuy joxe ndogu fii ci Pikine ci buntu kër yaayam ndax mënoon na koo defee ji feneen bari na ay ndaw yoo nga xamante ni am nan dara te defuñu ko fan ko fan ko war a def que moom mu juddoo Pikine yaroo fi même bu fekkee ni léegi dem na sëyi ji dëkkatu bi sax mais teewul dafa ñëw ba ci fi nga xamante ni fi la ko ñëpp xamee mu ñëw defee si ko fi euh, mu nekk lu rëy ci ñun wax dëgg yàlla mu nekk koo nga xamante yàlla xam na ko man ni ni mu soree ci sama xol man xam naa ni noonu laa soree ci xolam ndax euh, lu nekk laa koy yàq mu di ko accepté xam nga lu ma ko wax neex na ko euh, te lu baree bari bu ma ko partagé ak moom day nangoo accepté mu nekk affaire bu rëy ci man daal ñu koy ñaanal yàlla yal na yàlla defal ko ndam doom bëggee rek yow waaw <laughs> Aïcha maa ngi nuyu waa Touba Pikine yëpp fi nga xam ne sama koñu kër yaay la nga xam ne fi la ma baax fekk ma fekk fi baax li may faral di wax ci Leuz TV rek mooy du hasard moom mu ma yore micro ndax yàlla yàgg na ak jaam neexul moo tax lu ma xewle buñ ma bettee damay nangu lii dama ni woon dama koy def discrètement bëgguma woon kenn xam ko comme euh, c'est la première fois ñu def ni daal raam daal ba déwén ñu daal di jéem a dox mais comme yàlla def na ni nee na moom da doon def interview rek ci ndogu yi seen daaro daal di ñëw bay di daal dégguma la yaa ngi ñaxtu noonu ma waa jeex na waa euh, da doon def doxante bu ndaw ñëw ñu daal di bettuñu ci lii comme fii lan dëkk juddoo fi yaroo fi fekk fi baax ba baax fekk ñu fi je pense que bu nu amee dërëm bi war nañ ko fee delloo si bokk ko ñi fi nekkoon euh, ku ne xam na ni jox nit benn tàndara tàndarma mu ndogu rek bu la ñaanalee xéewal gi ci am kenn xamul nu mu toll surtout maa nag nga boole ci ay bernde yàlla def ñu daal di boole ci ay bernde jox leen ko ak yéene jox leen ko ak yéene mu dugg ci suñu xol loolu nag macha allah tey bu fekkoon ni am dafa toll ak ñàkk téeméeri mën a laa fii rangale barki sëñ Bamba ñëpp lekk ñu ko ci kër yi ñëpp lekk trésor ngi taxaw te dara ñaawul mais comme nii la demee nag def nañ ko ni première édition la macha allah te defe naa ni yombul nag ndax man damay faral di wax ni du ma defantu su ma naree defantu rek dama koy bàyyi bu déwénee dina mel ni mbàccum gerte ndax mbana yi dina yokk te ñaan ko sunu borom te dina ko def ndax defuñu ko lu dul yàllay kese ma ànd ceeg sama fans club mi fa da daaro président bi taxaw nii macha allah ñu ànd ceeg man na gunge ma ci côté yëpp nag gunge ma ndax aw ma woon jot maa ngi woon ci kóoru bi déew di tourné lépp ñoo ko dox ñoo ko dox ba mu sotti man duma ci dara dama ànd ak ñoom nii rek euh, taaral bis bi loolu la mais lépp ñoom la di ñaanal ñëpp nag képp koo xam ni jàpp nga ci bis bi maa ngi lay ñaanal bu baax a baax euh, ku ci mel ni Awa Diop Belgique sama maman Awa Diop euh, sama chéri Maguette Samb sama goro soble beeg pompiteer bi ndeysaan moo ko def sama goro sama sama goro bi jur sama jëkkër Mati kenn du moom ci man sama yaay jooju du goro yaay la maa ngi gërëm bu baax a baax di gërëm ñëpp xam naa ni daanu dajut suuf mais ñëpp bëggoon nañ ci jàpp mais ni mu demee la sponsor bi moom du kenn ku dul monsieur moo mari waaw Zeni BTP <laughs> Maysa Samb koo koy sponsor leader bi kenn moom ci man sama jëkkër jooju nga xam ne lu ma nekk mu nekk ci maa ngi koy remercier di remercier Leuz TV sama papa sama xarit moom it lu ma nekk da ciy dugal loxoom Baye Ñambe ak équipe bu Leuz TV yëpp équipe bu yëpp ñoom it macha allah bëggoon nanoo ñëw bàjjen ñëw na fi sànq sama yaay bàjjen ñëw na sànq mais dafa am conférence dellu mais moom tamit euh, jàpp na ci bis bi moom ku baax la mënuma ko fay. waaw salaamaaleykum waa Sénégal di wax salaamaaleykum waa Leuz TV aussi ñu leen di wax euh, kontaan nañ toroba ah. parce que xalaatuñu woon ni sax ñun image dina fi ñëw ah parce que ñun sóoraale wuñu woon image mais Leuz TV peut-être dañoo bokk ci ñun dañoo bokk ci Lami Faare Daaro Thiam waaw ñu nekkoon ci loo xamante ni mooy fans club Daaro bi nga xamante ni man maa nekk président yi maa nekk njiit bi te teguma ko sama bopp nag ñoom ñoo ma ko teg. waaw léegi nag ñu nekkoon ci suñu activité waaw tey te defe naan ren mooy première activité bi njëkk a def waaw te defuñu ko nag defuñu ko lenn ngir lu dul te yàlla tax rek moo tax ñu def ko waaw parce que sóoraale wuñ ci woon ay média mais kon bu ngeen ñëwee bettuñu rek te artistes yi ñun ak yéen sans yéen kenn mënul dem kon faaw ñu ànd ak yéen ci li ñu fi li ngeen bëgg waaw moo tax ñu fekk si leen waaw di leen wax ni euh, Lamine Fadé Daaro mu ngi nii mooy ay xale yoo xam dañoo dajaloo bëgg Daaro Thiam te yàlla rek tax. waaw man la Aida man la Aida góorgóorlu doomu sën ak baa Ili ma nekkoon ci góorgóorlu nit ñi gëj nañ maa gis nag waaye maa ngi fi woon nekkoon si sama ruq nekkoon di liggéey am na ci lu ma nekkoon nag moo tax kenn gisatuma woon waaye ñëw naa maa ngi nii ma ñëw tey bokk ci laa mi faada daara ci groupe daara bi nga xamante ne daara moom sama papa woon yàgg nañu ba tey jii sama papa gaañu daara mu ñuy seet moo ñuy moo ñuy nemmeeku mu may woo téléphone daara dafa may topp chaque jour Aida kay duggaat ci affaire yi ba tey jii ma bokk ci laami faa bi laami faa bi sax waruma cee bokk ndax dafa ne ma mag nga mag nga ci laami faa bi ma bokk ci laami faa bi pour mag mu jox ma nag sama place su ma duggee ci laami faa bi ci groupe whatsapp bi damay bokk comme ñëpp ma nekk tam fans club ndax daara mën naa ne bu ma nee mooy sama idole rek daara mooy sama idole daara sën mooy kon jeex na kon daara sama mag la sama xarit la sama lépp la dañuy déggante lu ma am dama koy woo si suuf ñu waxtaan te daf may conseil lu baax rek la may conseil këram chaque fois maa ngi fa ñu koy sant di ko gërëm ta di ko ñaanal lii mu commencé nii yàlla na ko eggale ci sagoom lu mu bëgg ci ci la mi fa na ko yàlla eggaleel ndax li yombul lii nii mu def nii yombul amul kenn ku ko mën yombul gisuma benn artiste bu mën a def lii ba mu mën a taxawee nii yombul te sonn na ci bay bëgg dee ñun lu nekk la def def réunion lu na la ñuy daj te lépp moo ci dugal xaalisam ak loxoom ak kattanam ak dooleem boole lépp nag boole ñu ñu doon benn ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaan gudd fan ak wér ak yokk ba ko ak saawaan baawaan li mu bëgg moo ko xam yàlla ko yàlla may ci bàq sëñ Fallou. ah sama tànk mooy sama jigéen woote sama jigéen koo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ma ak moom ca ba ca démb ja ñëpp xam ma moom ràññee ma ak moom wax dëgg yàlla kooku bu wootee lu mel nii lu ma jàpp dama koy bàyyi lu ma jàpp kenn ku ne xam na ne koor xat na te wax dëgg yàlla tàng naat mais moom bu wootee lu ma jàpp dama koy bàyyi ñëw ndax sama jigéen a sama jigéen te loolu. leer na Sénégal te wér na Sénégal te lim def nii dafa rafet xam nga la fet weeru koor weeru koor nga jël ay ñam jox ay doomu aadama ñu lekk waxuma la sax ñam ñu lekk mais nga jël kaasu ndox bu ndaw rek jox ko doomu aadama mu naan ko kooku tiyaaba jang cey am kooku jar na jar na di xëy di joxe ba di xëy di joxe ba dee moom nag yàlla jox ko xol boo xam ne moom nii mu mel noonu la mel wax dëgg yàlla xol bi mu yor nii moom noonu la mel moom léppam moom esprit partage la yor bu sañoon lu mu yor koy bokk ak nit ñi lii yàgg na koo def lii man du gan man xëy na ñi ko xamul lay gan ñoom mais man du gan man wax dëgg yàlla yàgg na joxe teraanga yàgg na defi teraanga ma koy teewe di ci teg sama bët di ko ñaanal nag gudd fan ak wér yàlla dimbali ko sëyam bii mu nekk yàlla may ko ci doom yi barkeel moog jëkkëram yàlla boole leen nuy sëya sëy ba ba ba ba kenn ki suul morom ji ci barke yonent yàlla Muhammad ci barke weeru kooru màgg wii yaayam jii nga xam ne moom lu mu def yaayam la moom lu mu am ne yaayam lu mu def ne yaayam yàlla na ko yàlla bàyyeeg yaayam ba ca kanam a kanama a kanam a kanam kanam ndax xam nga doom moom ñaani wayjur rek a koy puus te moom boo ko xoolee xam ne am na ñaanu wayjur moom am na ñaanu wayjur ñaanu wayjur gàllaaj la moom moo raw ay ndomba yu ñuy takk ak saafara suñuy diwoo te moom am na ñaanu wayjur ndax teewe nan yaayam ñaanal ko suñu kanam kon dañ koy gën di ñaanal rek moom daal dañ koy gën di ñaanal moom daal daara daal moom daal lam daan moom ci boppam li mu daan wax rek moom bëri ko ci mbartal la moom boo laalee mu dem boo laalul mu dem kon daal nañ ko ñaanal rek gudd fan ak wér yàlla may ko équipe doomu équipe nationale équipe nationale doomu équipe nationale waaw. <laughs> waa Darou bu wootee. faaw ma ñëw ci waa asalaamaaleykum TV salaamaaleykum waa Leuz TV salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Pikine tey nag ñu ngi fii Pikine Touba waaw ñu def spécial ndogu boo xamante ni laami faade daaro caam ñoo ko def xale yaa ngi nii ku xool xale yi xam ne ndeysaan ñëpp a rafet ku fi xeesul da ngaa ñuul te ñëpp a jonga kon tey Pikine na dina wàcc xam nga lu koy wàcce ndax xol yi dafa déggoo lépp déggoo ñu doon benn c'est la famille man jool tey li ma yëg boo koor gi commencé ba tey maa ngi ko door yëg tey ndax tey ñëpp lañ dogoo mais xale yi dañoo nekk benn bokk ndey ak baay li ma ci gën a neex nag mooy daaro mi nga xam ne moom mooy ndeyu mbili dafa baax na ñëpp ku am sa bës daaro da ci taxaw ba mu jeex tàkk moo tax tey bis bi àlaa daw me na waaw comme que nag dañoo nekk ci weeru koor ah dañ koy dañ koy yombal rek Balla Ndiaye bu dikkoon a ngi nii Ndayaa ngi nii euh, Buguma ngi nii ndeysaan euh, Ndaga ngi Ndumbe ngi nii Ayda Ndiaye ba Maguette ngi nii ndeysaan Ayda Ndiaye ngi nii nde euh, nde sex signature ngi nii maam bu so sama xarite ngi daalo cam neexu leen yéen cam duggu leen yéen saf ndaw ñi saf na mag ñi daaro eh, laami faabi laami daaro jonkanal ci suuf ku daaro ey ku daaro jonkanal ci suuf ey ku daaro ey war seesa neen war seesa neen ala bay bay taas max bala njaay bon. waa salaamaaleykum ñu leen wax waa adduna di wax salaamaaleykum waa Sénégal ah waa di leen wax ni famille baa ngi nii ah mooy fans club di Daro Thiam Lami Fadi daaro waaw mais lii yëpp nag li ko waral mooy benn jëmm ji mooy ay xale yu boole seen xel ak seen xalaat ak seen doole di ko defal Daro Thiam waaw li ci gën a am solo nag mooy dañ koo tëddee dañ koo tuddee tey jëmm ji muy Maam Jaara mi nga xamal ni ci weeru kooru daaw ci la tuubee woon. dugg ci diine lislaam moo tax ñu tuddee ko ko ñu jagleel ko ko tey waaw di leen wax ni lii nag ndog yi ñu def ko ci weeru koor gi muy sunu sunu premier pas bi njëkk a def ci waa fans club Daaru Thiama di leen wax ni nag du yem fii dañ ñaan sunu borom chaque at ñu feete chaque at ñu def ko te chaque at ñu koy gën a yokk ren ñetti mbana la mais bëgg nañ déwén mu nekk juróomi mbana ba fukki mbana waaw loolu la lii lii mooy li waa Lamy Fallé Daaru Thiam def waaw di sant ñëpp nag ñi fi teew ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm waa Pikine aussi di gërëm waa Sénégal di gërëm euh, Maysa Samb mi nga xamante ni moom moo moom ci sponsor yi la bokk jàpp na ci yëg nañ ko trop waaw di leen wax nekk chaque jour Lamy Fa ubbi na bunt yi képp koo xam bëgg ngaa bokk ci fan fans club Daaro Thiam ñu lay wax mën ngaa ñëw yegg si xataluñu kenn yaatal nañ ndax parce que jëm ji ñu jëm ji nga xamante ni moom lañ dëgmal wut si ko moom day yaatal chaque jour kon du ñoo bëgg képp koo xamante ni rek bëgg nga bokk ci famille Daaro Thiam Lami Fade Daaro Thiam ñëwal nga bokk wasalaam defe naa loolu moo nekkoon wax ji ah Lami Fa baa ngi fan si club baa ngi nii Lami Daaro Thiam eh. lii de neex naay jëmm jaa ngi nii wuy daaroo yaay bilay ku amul wéeruwaay da nga yomb ba max looleey sa yaay gërëm na lay xarit àndandoo yaa ngi nii per bu xar seede ma ma way daaro caam wala mi fa daro caamey mbokk yaa ngi nii maam jaara yaa waral coow li yaa waral coow li yaay borom tuuba yow mi tuuboon daaw dugg ci diin lislaam tey ma lambi lambee yaa tuuboon dugg ci diin lislaam koo ñaanal dafay dal yaayu xadimul xadim mooy tey ma bakk la doomu ilima nag yaaram buñ ko dee sukkal di ko ràmmal ma xama mbay ba tax dara mooy sa yaay may sa samba sa baay man bëgg sama jaaramey ku la lekk deey ku la nan man di ku la rey gënum réewooy koo mu dal yaayu xadimul xadim ey ey tey laa lay bàkk niñ doon bàkkee Muhammadu Rasulilaay ku fa dem dañ lay soppi soppi sa tur nan la alaaji mbaa ajaa ngay kunu baal fa yaasinooy wuy mam jaraay doomi ndaana laa ngi nii doomu gan mi baa ngi nii laay lay la laawooy bu ma jooylooy doomu ilimaan yaaram buñ ko dee sukkal di ko raamal ma xamam mbay ba tax daaroo lool daaro moo la gañ lool daaro moo la fonk lool sa maam muhammadu rasuulillaahi salallaahu alayhi wa sallam ay daara ci kaw ay la ci kaw ci kaw